بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk yu te yi ànd ak ñun ci jotaayu fiq sur euh, ikfaonline.com or on YouTube Ikfa TV Ikfa TV channel ñuy leen di nuyu te di leen set te di ñaan suñu borom booleel ñu suñu mbir yu feeñ ak yu nëbbu defaral ñu bi barakati mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa xurmati cheikh sayidi ahmed atijani radiallahu anhu ñu ak yéen ba léegi ci téere bu am solo bile di matnul ashmawiya ñu bëgg a jàng nag attey sangu sangu farata borom téere bi ne baabu faraidil xusli wa sunanihi wa fadailihi lii buntu farataay sangu la aki sunnaam ak i ngëneelam mu mel ne jaadu na ñu xam lan walla yan ñooy waral sangu farata bala ñoo dugg ci ay détail am bokk na ci tax sangu farata war deretu mbërëk wala deretu gësin gu dagg deretu mbërëk mooy li jigéen di gis weer wu nekk deretu gësin mooy deret ji muy gis jamono ji moo am doom bokk na yi tamit ci yi waral sangu farata janaba aljanabatu ñaara koy waral faddum xasaf muy li góor yore ci fa mu wara faddu dafay waral sangu farata donte mani yu génnut ci wala mani yu génn donte faddu xasaf amut mani yu génn ci lu sëy nag ñaar dana ko waral sangu farata taxaw benn borom da doon nelaw yeewu gis maniyu moo xam yëg na bànneex wala yëgu ko ba muy génn dafa war a sangu farata wala borom mi ngi yeewu nelawut jonjoog soxnaam walla toog di ko xalaat walla yuni mel ba man yu génn ca gént wala am maniyu ci ludut sëy ni muy dalee góor noonu lay dale jigéen jigéen it dana gént génne maniw yii yépp dafa waral sangu farata naka noonu dee doomu aadama ji su dee des koo war a sang sangum farata ñu dugg nag kon ci atte yi nga xam ne <clears throat> ñoom la borom téere bi indi tey muy farata yi faraidul xusli wa sunani wa sunanuhu wa fadailuhu alfardu moo farata bu ñu waxee alfardu moo ko waajib ak rukun ñoo bokk lu ñuy firi lu dul ci buntub aj aj nag am na yeneen détail dañ ci dikk bu ñu ne nangam farata mooy loola su dikkut jaamu yàlla ga du baax al fardu wal ruknu wal waajibu maa laa tasixu al ibaadatu illa bihi wala ñu ne maa yutu maa yutlabu al ityaanu bihi talaban jaaziman wala tasixu al ibaadatu illa bihi wala tasixu al ibaadatu bi ixtilaalihi loo xam ne des dee sa sàkku ak dikkam dañoo sàkku mu dikk sàkku gu dogu ba bu dikkut jaamu ga du baax lépp lu ne la farata ci nangam rek faratay julli faratay koor farataay eh, aj farataay eh, njàpp farataay sangu mooy yi nga xam ne boo ca bàyyi jaamu yàlla ga baaxut ndem jàpp la ndem julli la ndéem koor la ndéem sangu farata la sunna nag maa faalahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi jamaatin min annaasi wa adharahu wa waadaba alayhi walam yadulla dalilun ala wujubihi sunna mooy loo xam ne yonentu sallallahu alayhi wasallam def na ko ci mbooloo feeñal ko takkoo ko maalikiyatu yi loolu la ñuy tuddee sunna bu dee xanaabilatu yi nag sunna ak fadilatu yëpp sunna la waaye maalikiyatu yi ak ñi ñoom ci euh, déggin sunna mooy loo xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam def na ko ci mbooloo feeñal ko taqoo ko te amul benn tegtal buy tegtale ne farata la bu dee fadila nag muy ngëneel mooy lu yonent bi sallallahu def benn defut ko ci mbooloom nit daf ko def ci mbooloo su ndaw wala bu ko defee ci mbooloo it feeñalu bu ko defee it feeñalut ko wala bam ko feeñalee taqowut ko ñu ne loolu mooy fadilatu kon nag <clears throat> buñ xamee lanay farata xam lanay sunna xam lanay ngëneel ñu ñëw ak yéen ci bind bi fa amma faraiduhu borom téere bi nee na daal farataay sangu farata fa xamsatun juróom lañ juróomi yëf yi buñ dikkee rek am nga li ñuy wax al ijza sangu dafa am ñaari façon dafa am sifatul ijza loo xam ne soo ko defee rek mu doy ak sifatul kamal loo xam ne nag moom mat moo dëppoog na moo gën farata bu njëkk ba mu ne anniyatu mooy yéene yéene mooy dogu gi ngay dogu jëm ca jëf ja ngay jëf dogu googu ngay dogu yéene gi ngay yéene farataay sangu wala nga yéene yëgati toj gu gën a mag wala daganal loo xam ne toj gu mag daf ko tere woon yéene goog nag ma ngay amee ca njëlbeenu la ngay raxas juste bala nga sangu wala fa ngay tàmbale ñaareel ba wa taamimul jasadi wa taamimul jasadi matale yaram bil maa yi ci ndox yaram wi yëpp ndox ma xàgg fa maanaam waa ji tey bu yéene woon daldi jël ubbi saas bi sotti ba yaram yëpp tooy wa dalku jamiil jasadi ak ragg mbooleem yaram wi wal fawru ak méngale mooy du ragg du tooyal li dem noppalu ba mu neex ko mu ñëwaat yeggali la ca des daf koy def wenn yoon wa taxliilu chaari ak xalil karaw yaram wi yépp fexe ba ndox mi yegg fa fa mu war a yegg bu fekkee dafa am karaw mu daal di ko xalil ba ndox mi àgg bu defoon yii rek sangu sa sangu mat na loolooy melow doy waaw da nga am janaba nga yéene dugg ci sa douche ubbi sa euh, euh, euh, saas Eh, bi nga yéenee nga uh, sotti ndox mi ba sa yaram yëpp tooy nga ragg ko ba yëpp mët sangu nga farata waaye am na melo wu gën a mat daañ ci ñëw ñeent yi wala juróom yi <clears throat> juróom ñooy farata mu ne wa amma sunanuhu daal sunnaay sangu farata fa arbaatun ñeent lañu bu njëkk ba xaslu yadayhi raxas ñaari loxoom awalan ci njëlbeen ila kuwayhi ba ci ñaari takku njaraam wal madmadatu ak galax ndiku wal istinshaqu ak sorox ndiku jaadu woon na nag mu yokk ci fiiru waaye indiwut ko galax ndikook sorox ndiku ci ngiru ci imaam abu xanifata farata lañ ci sango bu dee ci ngiru ahmad ibnu hanbal sangoog jàpp yëpp galax ndikoog sorox ndiko ci waaye ci suñu madhab galax ndikoog sorox ndiko sunna lañ ci sango waaw <clears throat> moo tax wa amma sunanuhu fa arbaatun ëpp na ko nag waaye moom ñeent la indi bu njëkk ba mu ne xaslu yadayhi awalan ila kuwaayhi raxas ñaare loxo ba ci tekki njare yi wal madmadatu ak galax ndiku wal istinshaqu ak sorax ndiku wa masxu simaaxil udunayn ak masxa bën bëni nopp xam nga nopp bitiga dañ ko war a raxas waaye masa bën bën ba bën bën ba ca ba dugg ca biir bopp ba loolu la wax ne sunna la ci yi sangu farata mhm. wa amma fadailuhu daal nga neeli jàpp fa sittatun juróom benn la am na wax fukk nag bu njëkk ba mu ne mooy albadu tàmbale bi izalatil adha dañal lor an jasadi ci yaramam mooy balaa soobu ci sanguma sobe si nekk ci sa yaram nga dëñal ko ba noppi wala bu nga tàmbalee loolu thumma ikmaalu aadaai wuduihi topp matal ceri njàppam mi ngi lay wax sangu mi nga xam ne mooy sangum sunna wa ghaslul aali ak raxas woy kawe ya qablal asaafili njëkk way suufeya ci jàmmam wa tathliithu ra'si ak ñett ñettal bopp bil xasli ci raxas ga wal bat u ak njëkkee bil mayaamini walli ndeyjoor qablal mayaasiri njëkk walli càmmoñ wa qillatul maa'i ak néewal ndox maa ixkaamil xasli ànd ak xereñee raxas ga ana yu des waxul tuddul tasmiya te ci fadail mooy wax bismillah bala nga tàmbali sanguma bu fekke fi ngay sangoo laabun nanga nga wax ko bala nga dugg waaye nga am wal mawdiu tahir barab bu laabit bokk na ci fadail dégg nga noppi booy sangu bañ a wax bokk na ci fadail yi yéene ji nga yéene nga istishaar ko ci biir sangum mi yëpp bokk na ci euh, fadail yi waaw mu ne nag ngëneelu njàpp ngëneelu sangu yi mooy nga njëkkee dëñal sobe looloy sangum sunna sangum sunna mooy nit ki bu ñu ñëwee ci fi muy sangoo mu daldi di dëñal lor walla sobe si nga xam ne moo nekk ci sàkkaraam ak la ko wër ak fu munta nekk su pare mu jàpp njàppal julli njàppal benn benn raxas ñaari loxo ba ci tikku njare galax ndiku benn yoon sorox ndiku benn yoon fiiru benn yoon raxas kanam bi benn yoon raxas loxo yi ba ci ndeyjoor bi benn yoon raxas loxo eh, càmmoñ bi ci benn yoon masxa boppam masxa noppam eh, dégg nga daal di raxas ñaari tànkam wala mu mujjee leen ba ca mujjëk sanguma ci waxi lenn yëpp sunna la su defee mu daal di jël ndox mi nag sotti ci boppam ba mu toy xepp mu def ko ñetti yoon bu njëkk ba mooy farata waaye na ko def ñetti yoon mooy noonu lañ ko noonu mooy sangum sunna su paree nag mu daldi di raxas wàllu ndeyjooram dale ca kaw wàcc ci suuf ba ci wóom yi dalee raxas wàllu wàcc ci suuf ba ci womi mu dale ci wóomu ndeyjoor bi wàcc ci suuf dale ci wóomu càmmoñ wàcc ci suuf loolu version la walla buy wàcc buy sangu buy raxas wàllu ndeyjoor bi mu raxasandoor bi mu dalee ci kaw ba ci suufa suuf mu dem ci wàllu càmmoñ ngi wàcc ba ci suufa suuf du taxaw ci wóom bi dégg nga su ko defee nag mu daldi bëbël ndox mi ci kawam raxas yaram wi yépp ba matale lii su ko defee def na sangum sunna ànd ak nag mu sakkanal ndox mi kemtalaayu kàttanam kon nag ñaari façon ngi sangoo am sangum mët ak sangum doy sangum doy mooy koo xam ne def na farata yi yéene na sotti na ndox mi ci yaramam wi yëpp bam tooy ragg na ko bam set ragg na ko bam mat kooku sangu na sangum farata doy na sangum sunna te mooy sangum mat nag mooy njëkkee dañal lor dégg nga foofu lay foofu lay yéenee lor njàpp njàppal benn benn jël ndox mi raxas boppam ñetti yoon raxas wàllu ndeyjoor gi ba ci suuf raxas wàllu càmmoñ gi ba ci suuf mu bëbbal ndox mi ci yaram wi ragg ba mat bu ko defee sangu na sangum farata haada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu